suñu combat bi ñuy xeex nii mhm. avec tous les risques que ça comporte pour ñun te ñu assumer ko depuis le départ amuñu ci obligation de résultat c'est-à-dire nekkuñ ñoo xamante wax ne légui légui léegi nguur mi mhm. té même buñu ñu nguur finalité moy mooy naka la transformer qualité de vie sénégalais yi loolu benn la la deuxième chose mooy mhm. on n'est pas pressé man mii di wax ak yow j'ai trente trente trente ans ah, donc am naa encore quarante à quarante quatre ans

président sénégalais yi ñoo ko defar université bi nga jàng président sénégalais yi ñoo ko defar xam-xam bi nga am ci réew mi nga ko jàng ba nekk inspecteur non ENA kan ma fi indi donc lépp ku jiite réew ak koo mën di def lu baax di nga def d'accord di nga d'accord dans le fond du discours mais taxaw ne taxaw ne. Mm-hmm. dem ci gan bi euh, Bassirou Faye Bassirou Diomaye Faye. c'est-à-dire merci beaucoup xam loolu yëpp boo ko xamul. da dégg benn affaire rek. après moo tax ma laaj la dafa li ma dégg rek laa la laaj. gis nga Ousmane Sonko. waaw. particularité parce que mooy Ousmane Sonko créewul parti. Mhm. ay nit ñoo créé parti gis ay valeurs nit ne ko kaay. moo tax moo lay wax sànq. amnañu waxuma la Ousmane Sonko. am ci kanam raaw li gën. man Pastef la lay wax li ci kanam xamuloo ko parce que mën bañu fekk. yàlla rek xam donc amin amin amin ce que je suis en train de dire mooy. il faut que loolu mu leer que voilà donc ñun on a encore quand je dis on a je parle de la jeunesse du parti yàkkamtuñu lu wara mëna tax. ñu ñu ñu